Madia Diop Sané ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di fay di leen gàcce ngalaama di rafetlu seen liggéey. di fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal euh, Madia Diop Sané di coordonnateur mouvement vision citoyenne nekk ci société civile euh, bokk tamit wala sax ngeen ànd ak collectif bi nga xam ne ñoo euh, ñoo taxaw tey ji jàppale ba fa bayot la fa xewoon ak ñañ ci jot a jàpp tey ji fu ngeen toll ci plan d'action bi. waaw da ñuy permettre d'abord ñu. jaale ñi nga xamante ne ñoom la seen euh, ñoom ñoo am di jaale mbokk ñi nga xamante ne ñoom ñoo desoon ci boobu euh, musiba bi amoon mm-hmm. di ñaan fu ñu jëm ñoom fu ñu nekk yel na gën fu ñu jóge mm-hmm. euh, di jaale seen jaboot di jaale waa Casamance di jaale waa Sénégal yëpp ci xeexoo boobu ci musiba boobu amoon fii mm-hmm. léegi am na ñetti at ak lu teg bu mu amee ba léegi ñun ñëpp jot nañoo gis ni dafa am ay nit yuñ ci jàppoon Euh, mu am kenn ki nga xamante ne moom sa jot na faatu euh, mu des ñaari fukki nit ak ñeent waaye ñaari fukki ak ñett ñaari fukki nit yooyu ak ñeent boobu ba léegi ñu ngi ci loxoy yoon mm-hmm. mais yoon ba léegi tamit mu ngi ci temps yële nee nañu nii boucler nañ dossier bi mm-hmm. mais dafa am lu lu ci lëndëm lu ci ñaaw parce que mu nga jàpp ay nit dëgg la ñu ne instruction Sénégal mm-hmm. mais bu weesoo deux ans doy na waar ñu ngi jàpp ay nit presque ñu ngi dem ci ñeenteel at bi mhm. parce que léegi ñu ngi ci ñetti at ak lu ëpp juróom benn weer mhm. ba léegi mu ñu leen jugé ba léegi en pas en dehors de conférence de presse bi nga xamante ne waa gendarmerie defoon nañ ko fii bu ñu ñëwee ba jàpp nit nii mhm. ba léegi ñooñu noonu ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ba léegi kenn déggu leen kenn xamul ci lu ñu nekk ba tax na ñoom jóg nañu bala yoon xiifal autorité judiciaire yi dem gis leen waxtaan ak ñoom mu ñëwaat bi yoon ñu ngi yaat di xiifal parce que pour lan parce que dañoo bëgg ñu attee leen. justement balaa ñoo gën a yaatal li nga xam ne mooy xiifalu présumé auteur yi ak euh, mm. jamono ji li nga xam ne mooy seen bébét ñu gis ne askan gi euh, waa Boffa Bayotte dañoo jóg taxaw temm ne dañ leen di jàppale lu ñu bëgg mooy procès ñu tàmbali woon ay plan d'action yi nga xam ne amoon na ci sitting euh, devant maison d'arrêt bi amoon na ci sax ay xiifal yu ñu yu ñu yu ñu annoncé tey jii ñu bëggoon a xam fan lañ toll ci wàllum plan d'action yooyu. ci plan d'action yi dafa am plan d'action yi nga xam ne dañ ko teg hmm. ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy plateforme euh, bi ñu tuddee plateforme doy na Casamance yi nga xamante ne vision citoyenne FRAPP ak yenn collectif ñu ngi ci biir hmm. beneen côté bi mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa famille yi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp seen nit tëj leen rax ci kaso bi boobu ba léegi hmm. li ci jot a am mooy seen première fois bu ñuy def xiifal parce que koo jàpp ñetti at ak lu teg déglu ba léegi dégluwoo goo ko xamuñu lan moo dañu defoon ñoom seen sitting mhm. jour boobu ñoom seen famille ñoo ñëwoon def sitting buñ ci jógee ñun dañu ne lii mënuñu koo mën a toog di seetaan ni parce que wax dëgg yàlla kuy dox attaque yi yelleef waroo mën a seetaan tamit ñu def ay doomu jàmbur tëj leen ba pare ngay seetaan. Mhm. ñun bokk nañ ci lu ñu njëkk a def ñun ak ñoom mooy def benn conférence de presse ci benn quartier bu tudd Lindiane. Mhm. ñun ak famille buñ ci paree lan lañ def dañoo def benn marche fii ci Ziguinchor. may wax ni marche boobu sax dafa bokkoon ci li nga xamante ne dañ ci boole tamit libération mooy ñi nga xam nañ leen jàppoon ci mois événement yu mars yi. Mhm. ñooñu bàyyi nañ leen ñu ñu jàppoon mois de mars bàyyi nañ leen parce que dañoo marche ñaari ñaari ñaari fan encore. Mhm. ñu ñu ñaari fan yi ci tegu ñu bàyyi ñu mhm. léegi ñi des mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso bi te ñi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne affaire boofa bi ñoom la concerné buñ ci paree temps yële tamit def nañ fi benn benn benn benn benn conférence de foofu foofu sax. ci ci Toubacouta ak membre famille ak waa village yi nga xamante ne ñoom la tey seen nit ñi ñoom la jàpp bàyyi leen ci kaso bi. Mhm. ak seen kilifa yi fa nekk yëpp semaine dernière lañ ko def mooy semaine bii weesu. Mhm. te bind nañu tamit ñun en tant que structure pour ne dañoo bëgg def sitting devant la prison centrale bu Ziguinchor fi nga xamante foofu la denc gars yi. Mhm. préfet binduñu benn courrier bi nga xamante ne bu am importance la. bu courtois pour ku yor xel ku ne bu ñu la ko waxee di nga nangu. d'accord ñu bindaat beneen courrier bi nga xamante ne boobu pour dugal la parce que dañu ne léegi comme mënatul nekk léegi dañ koy def fële mooy ci kanamu këru ci kanamu bureau régisseur an mi nga xamante moom moo yor wàllum prison bi. kon bu ma la déggee ngay wax jeudi bi fas yéene ngeen génnaat ci wàllum plan d'action yi amal benn marche wala benn sitting. amal marche amal sitting la def parce que marche yi moom dina ñëwaat parce que lu ñu bëgg mooy. Euh, dañuy dégg autorité judiciaire yi ñu naan ñoom kenn du leen teg pression. Hmm. dëgg la kenn tegu leen pression kenn jógul pour teg leen pression yow jugé wu ni yaa ngi leen bàyyi ci biir ay nit comme ni ñu koy waxee dañ koy répété saa su dañ koy bantuwaat nit du mala te mala kenn du ko dugal kaso waaye boo leen demee ba dugal nit kaso nag dafa am ay droit dafa am ay acte dafa am ay yelleef donc boo leen amee ay akom da ngeen koy respecté mais Sénégal dafay mel ni dañ lay jàpp prisonnier nga rek da mel ni mala loolu mën nekk kenn du seetaan loolu parce que encore une fois de plus te liberté yooyu noonu nga bëgg koo xañ nit ki parce que nee lii moo def jusque là li ñu bëgg xamal ne nii mooy dafa am li nga xamante ne dañ ko tuddee la présomption d'innocence mhm. nga xamante constitution sénégalaise bi moo ko garantir mhm. ne nit boo leen jàppee ni tant que jugé wu leen ko da ngeen jàpp da ngeen ni moom moo def mais mhm. boo leen ko jugé après si ngeen di xam moom la wala du moom mais ñoom lu ñuy laaj mooy nee leen jugé yow mais xanaa ñoom lu ñuy woote nekkul ci ñoom wala xanaa ñoom dossiers yu ñu yor leerul parce que jugement bi nag li ñu leen di wax mooy dafa war a nekk un jugement un procès populaire nga xamante ne ñëppay ñëw toog déglu ñoom justice bi lan la ñu wax ñu déglu li nga xamante ne moom la détenu du tontu parce que tamit du ñu nangu ay agneau du sacrifice parce que yëpp yi am na. et justement lan ngeen di def fixation ci euh, donc audience populaire lan la dafa am lu ngeen jot ci euh, bi dossier wala. waa mais yu mel nii boo déggee bu bu yëf yi amee nga xamante ne ñu bëri jàppewuñu leen ci biir àll ci seen biir kër yi lañ leen jàpp nee leen yéen a yéen dañ leen jàpp dañoo ñaaw njot yéen def ñu ñëw jàpp leen tëj leen ci kaso bi booba léegi kenn leen nga bëgg ñu ñun mënuñu ñun mënuñu duñu duñu accepté sax audience bi mu doon une audience fermée bi nga xamante ne dañuy tëju ñoom ñi wax seen biir déedéet ñun dañoo bëgg dëgg parce que wax bu waxu waxu dëgg ku ko dëgg rek xam ne lii dëgg la donc ñun loolu lañu bëgg bu ñuy def procès bi na nekk procès bi nga xamante ne ñëppay xam ñooñu bu ñu waxee ñun dañuy dëgg ñoom justice bi ñu waxee ñun dañuy dëgg pour ñu xam dëgg bi fan la féete parce que une fois encore une fois de plus dañuy xam ne ñi jàng ñi def droit ñu teg leen foofu luy dëgg lu ne ñoom xam nañ ko ñun tamit ñi nga xamante ne boo deful droit luy dëgg xam nga ko wax dëgg yàlla donc lu bëgg mooy procès bi un procès juste équitable mooy procès bi nga xamante ne day jaar yoon lu am lenn lu ci lëndëm parce que dañuy wax ni tamit exception exception mooy ci justice mooy ñu jàpp nit mooy ñu tëj la mhm. privation de la liberté mooy exception bi mhm. la règle mooy ñu juger la joxol ni defoo ñu bàyyi la mais Sénégal dafa mel ni exception bi mooy jàpp ay nit tëj bi te vraiment vraiment dafay mel ni paradoxe quoi day mel ni euh, bi lii exception fële mooy li nga xamante ne bu tëxee ba tëx Sénégal moom la ñuy def mooy moom la ñuy yomb moom moom mooy moor yombale Sénégal mooy maanaam bu ñu jàppee nit lii juste mooy ñu bañ la bañ ñu bañ la xañ te liberté loolu mooy exception bi mais Sénégal moom mooy règle bi mooy maanaam jàpp nga ne tëj nga ko fàtte nga ko loolu mënul nekk mhm. te ñun dañuy wax ni yëf yi dafa am lu bari li nga xamante ne ñun dañ ci ñaaw njot ni am na ci parce que xam nga bu amee ay nit ñuy dee ba ñëpp di ko coow mhm. il faut am ñi nga xamante ne dañ leen di jàpp waaw mais ci jàpp boobu noonu dañu bëgg mu leer parce que munoo jàpp ay nit tamit tëj leen munoo wax lu leer ba léegi yaa ngi yor say kayit ñaata juge d'instruction ñoo fi ñoo fi succédé ñetti juge d'instruction jaar nañ ci dossier bii ñetti procureur jaar nañ ci dossier bi mais quand même qu'on se dise la vérité nañu waxante dëgg kon yëf yi lan lay nuroon te dëgg nañu ñëpp ñëpp di wax ñu ngi ñun ñu ngi ci boole sax di ci lancer un appel solennel di woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sénégal di xeex pour attaque yelleef nit ñi parce que bu ñu fàtte ni ñu ñu jàpp dugal leen ci kaso yi ay nit lañ tamit dañoo war a xeex seen ak ak yelleef. justement gisoo leen ne wet ngeen ci ci xeex bi. dëgg nañ temps yële forum du justiciable wax mais dëgg nañ beneen ay ay temps tamit euh, Assane Ndiomba Ndiaye wax na dëgg nañ tamit ay temps kii waxoon na Seydi Gassama bu Amnesty International mais ñu ngi leen di wax ni du wax bi rek yëf yi nañ ci dugal seeni loxo dugal ci seen i tànk dugal ci seen i lépp pour li nga xamante ne yoon def liggéeyam pour ñu am xam fan la dëgg bi féete. Madia Diop mais dañoo gis gis nañ ne tamit euh, wax nga ko sànq ci say ndorteelu wax ne ñoom ñii di présumé auteur u tuerie Boffa bayot jamono ji ñoo ngay xiifal ñu dégg ci wax coow li bari naa nee nañu ñenn ñi euh, ñoo ngi leen a yóbbu euh, infirmerie ndax seen état de santé dafa xaw a loof jamono ji lu ci am. waaw loolu ñu koy ñu koy ñaawlu d'abord parce nit nga jàpp ko. ba muy dem bay xiifal ne la kaay jugé ma dafa doy waar wax dëgg yàlla te damay wax ni dafa am lu muy nuróol mais bañ fa yeggee rek dana danañu xam dëgg bi ba mu fa yeggee nag ñun tamit di golo dana xam ne muy bootee doomam mu ngi xiifal bi mooy seen deuxième fois bi hmm. tey jii presque mu ngi bëgg mat une semaine mais gàcce ngalaama ba léegi jot nañ ay information yi wane ni dëgg nañ suñu woote parce que ñun dëmb dañoo woote wax si rajo yëpp nee nañ leen di ngeen bañ a nekk fii di xiifal di sonal seen bopp parce que ñoom am na li nga xamante ne dañu koo jot a wax. Mm. mu nakare ñu trop benn kilifa bi nga xamante ne mu ngi si justice bi ci ñoom li ñu wax nee na leen bu leen neexee. le 6 mai dernier la leen ko wax nee leen bu leen neexee ngeen xiifal bu leen neexee ngeen def li man man ak sama famille ñu ngi dund bu baax mm. man man ak maa ngi lekk mm. maa ngi naan boo leen di xiifal seen bopp ngeen di sonal man mënu ma teg pression mais wax loolu noonu du waxu kilifa parce que waxu kilifa surtout ku nekk ci mbirum yoon bu fekkee loolu am na dañ koy ñaawlu parce que loolu tey c'est la première fois ma koy wax ci rajo bi tey c'est la première fois ma koy wax te bu fekkee kilifa bu nekk ci wàllum yoon moo wax loolu déraaye na mooy maanaam jéggi na charte yi mhm. daanu na ci saret parce que loolu du waxam d'accord parce que ay nit bu ñuy xiifal war ngeen mën a dem gis ngeen waxtaan ak ñoom mais malheureusement da ngay xam ni Sénégal moom ku nekkul ku nekkul sa mbokk rek nekkul sa mbokk day mel ni loolu la te ñiy yor yoon waruñu xool mbokk waruñu xool leneen nañu xool ñi doomu aadama lañ tey gàcce ngalaama déglu nañ suñu appel moo tax ñu ne la yëf yi ñun duñ ci taay parce que amaana ñoom la dal mënoon na dal keneen mënoon na dal keneen ak keneen ak keneen. Mhm. parce que lu ñuy jot a wax mooy ku nekk Casamance rek tu es en parce que lu ndaw dañ lay jàpp ne la lii nga lu ndaw dañ lay jàpp ne loolu lañ bëgg mu dañ loolu lañ bëgg ñu dañ parce que ñun xamuñu leneen lu dul nous sommes des citoyens sénégalais qui doivent lu ñuy ñaan mooy na justice def liggéeyam ñoom tey maa ngi la wax peut wax ni dakkal nañu fu mu toll nii seen xiifal ci waxtu yu ñëw lañ ko dakkal yàggul. te muy wane ni lu ñuy wax ñun ci biti ñoom ñu ngi koy dégg. di ci sant yàlla bu baax di leen jaajëfal di leen gërëm parce que ñun leen leen leen wax mooy seen xiifal bi ngeen di def mhm. euh, mhm. boobu la bëgg ñu toog lekk naan ba mandi ba nga xamante bu ñu leen tegee ci justice dañuy wax li nga xamante ñoom loolu la xam mais boo demee ba ñu ne nit ki jugé nañ ko en contumace wala jugé article dafa dafa dee euh, nekkatu fii donc kooku doo xam dëgg bi moo tax ñu ne leen dàkkal leen xiif bi te ngeen lekk ngeen naan te ngeen xam ni procès bi ala kulli yi dana am te lépp luy tax ñun tamit ñu taxaw pour procès bi am dinañ ko def parce que tamit ñu nekk ci wàllum yoon li leen gënal tamit mooy yoon justice Euh, procès bi am pour ku nekk xam wala dëgg bi pété pour ñoom tamit ñu am yeneen dossiers yi nga xamante ne ñu mun koo ñu mun koo lijjanti. parce que il mais ñoom ñu leen di permettre ay visites ak yooyu. waaw ñu ngi leen di permettre ay visites visites yi moom ñu ngi leen koy permettre euh, amoon na ay temps yi nga xam dañu dàqaloon visites yi ba pas affaire corona bi mais euh, pour wax la ni yëpp yi affaire goofa bi vraiment dafa am ci yu bëri li nga xamante ne jaar na fa te nitewul maanaam nekkul yëfu xam nga mais tey jii ñu ngi sant yàlla. ni uh, ñoom considération bu ñu war am petit à ñu leen koy jox mooy considération bi nga xam kii détenu am na ak am na yelleef ko mais ci yu njëkk ya ci njëkk ya ci jëlbeen bi mhm. vraiment amoon na yu bëri yi nga xamante ne dañ koy déplorer comme xam nga rek jaru fee fàttaliku parce que ku fi fàttaliku rek da ngay ñit ñi donc moo tax am na yenn yi nga xamante ne ñun duñ ko wax parce que dañoo jóg tamit pour defar jóguñu pour yàq mhm. Madio Diop Sané ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñun ñoo leen di jaajëfal yi nga xamante ne ñuy permettre ku nekk ci monde bi ku nekk ci Sénégal fépp foo nekk ci àdduna tamit war a mën a dëgg li nga xamante ne moom moo xew fu nekk di leen jaajëfal parce que dañuy wax ni <laughs> dañuy wax journalisme communication wala la presse le quatrième pouvoir dañuy wax ni ñun dañu réeree mbir ni fii la presse le deuxième pouvoir parce que liggéey bu muy def am na yenn pouvoir yi nga xamante ne ñu ngi fii kenn defu ko